salaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo dal leen ak jaam ci seen site d'information seen kàddu li gën a fës ci boppu xibaar yi dañu koy dooree ak jàkkaarloo yi amoon ci fële si diwaanu Diohine askan wa doon amal ab marche pacifique te mu mujjee ci jàkkaarloo ak way takk der yi ba fukk ak ñeent am si ay gaañu gaañu. leneen lu ñeel ci xibaare Moussa Niang vice président ATE di leeral jafe-jafe yi ñuy jànkoonte ci seen bërëbu liggéeykaay te ñu toll ci limub ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent Mansour Faye doon amal tey ab ubbiteg pont bi di Labat Fall ci diwaanu pikin tey ci altine yi yemoo ñeenti fan ci weeru may. moo gënoon a fës ci bopp xibaar yi ne suut ñi ñëw ci yaatal li jàkkaarloo yee amoon ci diwaanu Diohine mën nañoo jàpp ni euh, am na ak dal ndax kii nga xam ni mooy euh, Cheikh Ndigal seen di waajur bu góor ci kii nga xam ni mooy Baara Sène te mu nekkoon fa kilifa diine doon fa jël ay ndogal yoo xam ni waa dëkk ba ànduñu ca lañ ca jàpp mooy dëkk boobu am na ak dal ginnaaw waajuram bi jëf koo jox ndigal ngir mu génn ca dëkk boobu boobule bu loolu dooree ñu wax leneen Moussa Niang nekk njiitalu kuréel gi nga xam ne ñoo ëmb ñii di liggéey ci wàllum courant moom kat indi na ay leeral li nga xam ne jafe-jafe yi lañuy ñuy ci seen bërëbu liggéeyukaay bi te ñu toll ci limu ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ñoom kat moom kat la mu wax nee na dinañ toll dinañ toog lu toll ci fukki weer te duñu jot li nga xam ne moo di seen salaire Sali Diouf moo taataan ay kàddoom ñu teewlu ko 499 prestataires nous avons lancé appel euh, pour rectification euh, discours président premier mai qui télé prestataires régulariser 8000 prestataires or que on que 499 personnes donc on a deux effets par voie de la presse pour annoncer monsieur le président bu e, des de l'électricité 499 personnes. au lieu de 8000 prestataires ils ont annoncé 2020 euh, il va régulariser notre cas à la dernière minute de 2020 nous avons trois personnes donc l'incohérence totale nax ta ren nax la déwén dalaa neex bu ñu naxee benn yoon la ñuy nax pourquoi parce que am nañ respect ak euh, ci moom respect ci ci boîte bi dañ ko war a déglu comme kilifa mais su fekkee ne gis nañ ne nekkul koo xam ne aussi euh, homme de parole la moo mënatuñ si dara Mansour Faye di jëwriñ bi ñu dénk wàllu dem bi ak dikk bi tey ci talaata ji yemoo ko ñeenti fan ci weeru mai doon na amal ubbiteeg pont bi nga xam ni moo nekk fële ci pikin di pont Labat Fall ngir yombal dem bi ak dikk bi Sali Diouf moo ñu teewaloon ca ca diwaan boobu la ñu taataan ay kàddoo ji ñëw inauguré un autopont pour Saint-Lazare inauguré autopont la Cité Gorgui inauguré autopont pour Nek ca Yoff lobot fal programme bu le programme la boo xam dañuy réaliser autopont pont ak ay autopont autopont ak pont ak donc nous avons am solo programme Le président de la République Macky Sall Sénégal

am na yeneen autopont yoo xam ni dañu koy def ci biir Sénégal ci yeneen dëkk yi. ñu dem ci diwaanu Ndingler dañoo nemmeeku fan yi ab jàppante yi fa am ci diggante ñi nga xam ne ñoo yor sécurité bu sécurité bu Babacar Ngom ak euh, ña nga xam ne ñoo fa nekk ci ay baykat ñoom kat la ñuy ñaawlu nee na ñu nangu benn yoon ñu nangu seen tool yooyu nga xam ne moo nekk ca diwaan boobule ci noonu ñoom ñi ngi woo euh, nguur gi ngir mu indi ay saafara ci lu nu mel. poste bu maytuwul dina ñàkk lu toll ci ñeenti junni ci ay ndawam fii ci feetu première mai bi ñu génn ki nga xam ne mooy seen secrétaire général bu syndicat national des travailleurs de des postes Ahmed Diouf xamal na ni poste ñu ngi jànkonteel fan yi ak ay jafe-jafe ndax nguur gi joxuñu leen li nga xam ne mooy seen àq ak seen yelleef te itam ñu dakkal fi ñi nga xam ne ñoo fi nekk di seen kujje ñi nga xam ni ay livre cag-cag lañ ñoom tamit ñi ngi wax nguur gi jël ay matukaayam lu ko may ñoom suñu continuer seen liggéey boobu dina leen yàqal li nga xam ne mooy seen liggéey secretaire général moom moo xamle loolu. bu loolu dooree ñu wax leneen lu la xibaaru bitim réew Bachir benn Yahmed mi nekk presse internationale dafa génn àdduna ginnaaw bi mu amee feebar bi nga xam ni mooy mbas mi mi ngi génn àdduna ci 3 mai bi ci hôpital parisien boobu ginnaaw ba ko feebar bi tëralee lu toll ci ay yu bari să ci xibaaru tàggat yaram la ca gën a fës bokk na ci éliminatoire coupe du monde 2022 bi ak ndogal ya ca FIFA jël melukaan yenn ci estade yi nekk fii nga xam ni mooy réewum Sénégal ñoom kat nee nañ bu ñu soppeekuwul coupe du monde bi duñu ko amalee fii nga xam ni euh, mooy ci réewum Sénégal Jérôme def na si ay jàngat euh, ñu taataan ay kàddoom. toltolaan yi la équipe nationale bu Sénégal fas yéene def ci li nga xamante ni moo di éliminatoire coupe du monde 2022 li ko waral mooy confédération africaine de football. omo wul benn stade boo xam ne na Sénégal ngin ñu mën fa football ay match li tax lolu mooy FIFA dafa indi won ay tëralin yu bees ngir ñu mën am ay stade yu yemb te nit ñi mën faa def ay football bu rafet te melukaanu stade Lat Dior bu Thiès dëppwul ak li ni mel loolu nag tax ba Sénégal su bëggee am ay jongante day di daal génn réew mi comme li ko daloon ci atum 2014 lii su amee nag bettul kenn ndax ñëpp ñoo ngi doon kaas ne stade bu Lat Dior bu Thiès pelouse ba baaxul loolu nag tax na ba kaaf moom ci saat yi nga xamante ne FIFA teg na ko jàpp na ne stade boobee mënul accueillir ay compétitions internationaux li ni mel nag nekk gàcce bu rëy ci équipe bu Sénégal ndax jàpp nañ moom mën ci Afrique ci jamono jii équipe boo xamante ne jàpp ne moo te amul pelouse bu baax ngir ñu mën ci faa loolu nekk gàcce bu mag ñaari match yi jiitu nga xamante ne Sénégal wala na ko fubal ci mois de juin suñu sukkandikoo ci information yu jot dañ koy daal di fubalee stade bu Praia wala ñu yoon incha allah.